diggante démb tay 100 milliards francs CFA état Sénégal perte nako demb 50 milliards tay 50 milliards parce que banque yi ubbiwun station yi doxun banque commerçant bi tëj na tey tay rew mo xamanteni xamante ni ngi maam déficit budgétaire tay indi sa bop ay jafé jafé yo xamanteni ben procès bo xamanteni ni la euh, viol la ak menace de mort te yoon joxe ni dëgg ni lolu amul légui kan mooy responsabilité état du Sénégal kon motax il faut que may wax ni kenn ku nek dama lay wo ci dal pour réew mi parce que nak am réew kuko ko yore bëgguloo mu yàqu ki koy wut aussi bëgguloo mu yàqu. kon muy Ousmane Sonko ay Macky Sall ñom ñepp ma ngi leen di woo pour ñu woote dal ak jamm ci réew mi waxtaan parce que lu waxtaan indi wul nak xex mënu ko indi. digënté démb tay 100 milliards franc CFA état Sénégal perte na ko démb milliards tay 50 milliards parce que banque yu ubbi wun station yu doxun banque euh, commerçant bi tëj tay tey tay tey réew moo xamante ni yaa ngi nekk maam déficit budgétaire tey indi sa bopp ay jafe-jafe yoo xamante ni benn procès boo xamante ni la euh, viole la ak menace de mort te yoon joxe ni dëgg ni loolu amul. léegi kan mooy responsabilité état du Sénégal kon moo tax il faut que may wax nii kenn ku nekk dama lay woo ci dal pour réew mi parce que nag am réew ku ko yore bëgguloo mu yàqu ki koy wut aussi bëgguloo mu yàqu. kon muy Ousmane Sonko ay Macky Sall ñoom ñaar ñëpp maa ngi leen di woo pour ñu woote dal ak jàmm ci réew mi waxtaan parce que lu waxtaan indiwul nag ko indi. diggante démb tay 100 milliards francs CFA état Sénégal perte nako ko 50 milliards tay 50 milliards. parce que banque banques yi wun station yi doxun banque euh, commerçant bi tëj tay tey tay tey réew moo xamante ni maam déficit budgétaire tay indi sa bop ay jafé jafé yo xamanteni ben procès bo xamanteni la euh, viol la ak menace de mort tay yoon joxe ni dëgg ni lolu amul. léegi kan mooy responsabilité état du Sénégal kon moi il faut que may wax ni kenn ku nek dama lay wo ci dal. pour réew mi parce que nag am réew ku ko yore bëgguloo mu yàqu ki koy wut aussi bëgguloo mu yàqu. kon muy Ousmane Sonko ay Macky Sall ñoom ñaar ñëpp maa ngi leen di woo pour ñu woote dal ak jàmm ci réew mi waxtaan parce que lu waxtaan indiwul nag xeex mënu ko indi.